liberté provisoire. Ah, soo ko mayee déglu non du ma déglu nag tey moom du ma déglu nag. doyen ma ne. 800 millions ma ne 20 000 francs boo supporté ne plainte te amul preuve mën nañ ko ne ba ñibbi. am preuve nak. ana preuve le gars a tous les documents. Hmm. déglul facture aux mains du gars Cham. il a les factures. facture yëpp mi ngi ak moom facture bi mu ko joxee bi mu ko joxee 800 millions yi facture bi mu ko jox 300 millions yi facture yi mu jëndee oto yi mi ngi ak moom mm. te nag may wax ni kima togolon di wax mm. mi ngi seetaan émission bi parce que mi ngi may jox ay information kima tok mm. toog lan la joxati non lii il a les factures facture yaa ngi ak mom mm-hmm. kon man limay wax waxantuma mhm. te ma ngi xaar benen parti bi toog ak ma ni toogoon ak mom ñuy wax wax dëgg na parce que tam dinañu intéressé waaw déglu ñu non déglu rek loolu tax ma ne la loolu tax ma ne la cette liberté provisoire là et les avocats doivent sortir aussi j'ai dit euh, qui a été demandé par les trois avocats là teguñu ko fenn parce que dama lay wax dama ne am nañ ci droit nak juridiquement c'est liggéey la c'est vrai mais tay juge troisième cabinet war ko nangu y a des juges véridiques tax juge troisième cabinet war ko nangu mm. parce que maa jox information juge troisième cabinet xam nga lan la moy su génnee Sénégal suñ ko amé liberté provisoire dubai la jëm waa ji ñàkk na xaalisam dootul dellusiwaat Sénégal day daw donc processus affaire dafa wara dem ba ba fin puisque nak deug jubal jub jubbanti té mi ngi suñu kasso yi waru fi génn lool moy deug maintenant nak ya dugg ci transition bi. parce que jub. jubal jubbanti. wax ji sax dafa dëgër. jub c'est que nuñ ko tuddee moo dëgër dafa dafa danse quoi. dañ cee waroon nekk nag malheureusement newuñu ci de. ah jubuñu jubaluñu jubbantiwuñu. booy woote sangaay da ngay kii da ngay ñu ba pare non nag. Ah, dama ñu jubuñu jubbantiwu mm. jubbantiwuñu tabaski bii ay chèque un million un million un million lañ doon jox nit ñi. ah c'est normal dañuy defar seen tabaski. gérer seen base. ñi ngi jël alalu askan bi. Mm. di ko jox seeni nit ak seeni ñoŋ. Eh, Sonko am na salaire mun na cop compi si salaire am. Sonko ba nii may wax fayekoogul. Diomaye am na salaire ba nii may wax fayekoogul. am na lu ñu ko jox mu téye di non déglul baax li ma la. am na ñaa ana neuf milliards yi ñu ko jox mu téye non Sonko yow yaa ma fi wax fii keroog. waaw déglu waaw Diomaye li mu moom li ñu ko jox. waaw mais mais ma si neuf milliards yaa ma ko xamal. mun na cop may ku xam nga man na xuloo ma ak man xuloo man. man xuloo ma waaye da waaw déedéet. damay laaj <laughs> gisuma 15 damay laaj nag. maa ngi lay xool gisuma 15. damay laaj nag. Ah. damay laaj ndax da nga jës gis sa wàll wala jotoo ci. gisuma 15. dama ne ñi ci jot seen wàll ba dugal ko TikTok. chèque un million de francs. Mhm. Sénégal gis nañ ko de. asura de ba li ci gën a rëy ñu jox ko 4-4. Mm. mu toog ca gannaaw. ak mm. chauffeur ak chauffeur am. Mm. jubali. ñooro. wala. Mm-hmm. Mm-hmm. lolu moy ben ñeneen ñi. Mm. ñi jot segu un million parce que fi ba fi may wax ak yow amul ministre bu ko salaire. Mm. voilà. chaque mois lu ñu leen viré kon lan la. déedéet viré wu ñu leen ñaar dërëm. chaque mois dama né néna la fi mu ne nii. Mm. décret yi mi ngi top circuit bi pour mëna a dugg fonction publique pour ñu mun ko commencer fay liñu tok toog ñu ne dañ leen koy rappel. Ah, man nak man nak soxna si. comme temps université ne ndeysaan rappel neex na non non waaw suñu gars yi oh, suñu demaan rappel. dañu dem suñu gel yi dem nos rappel neex na trop déglu baax li mu la dama ne soxna ci man nekkon na ci cabinet ministériel. Mhm. xamna naa comment ça prend un peu de temps. ça prend au bas mot 6 mois ba 7 ba 8 mhm. man togon na mais n'empêche duñ la bàyyi non quand même deug lu rek man tok mhm. na fi 11 mois sans salaire. Ah, parce que j'étais j'étais j'étais dans un cabinet. mais dañu ñu jaayoon ne loolu. Ah, dafa jeex jaajëf waaye Ousmane Diagne merci beaucoup yow mi dem si kii ba Camp Pénal def na fa benn descente. Ah, dëgg la jox nañu info bi loolu moom lu baax la. waaw waaw damay terminer fii. Ah, eh, dama lay wax la waroon na cee yëg yaab bi. waaw na waxoon na leen le ministre de la justice war na cee yëg yaab <laughs> dafa mën liggéeyam waxtaan ko fii dafa déglu suñu émission rek dafa seetaan rek. <laughs> dafa seetaan rek moo tax mu daw. day bañ après ma day bañ ma dal ci kawam. dafa seetaan rek. Ah, dafa tombé. waaw baal ko moom dem na. waaw puisque dem na maa ngi xaar lu ba yan décision la fay jël nag. Ah, parce que normalement ña monté tey dañ leen war a relever. a relever ña ah. monté tey dañ leen ma ñëw ci. rupture. day woote ba pare laajte. déglul rupture la ñu mm-hmm. woote woon. Mm-hmm. fi ne nii ñi ngi ci bambulaa. Mm-hmm. xam nga fii laa la toog ne la commencé nañoo noosee alalu askan bi nga ne ma loolu amul. Mm. wax ma la ministre bi ñu toog fii ministre jour premier conseil des ministres ministre bu jógee palais génn nga fa ak dix millions. Mm. fii laal ko xe mm. kenn weddiwu ko. jour premier conseil des ah. ministre bu génn palais génn nga ak dix millions. cash. liquide du chèque de liquide. amul foo biyee si biir. liquide laa la wax. ministre yi pour ñu équiper seen kër. changer fauteuil changer garde robe. damay laaj wax ministre ministre yëpp la. Ah. koo dégg titre ministre rek am na ko ba ci ki nga xam ni papaam moo ma jàngal man. billahi wallahi taalaay papaam moo ma yoroon CE2. kooku yorul bu yoroon sax dina na. non yor na. na. non kooku jotut non déglul baax koy protéger nag. parce que suma suma suma. non kooku suñu suñu non dama koy protéger parce que papaam da moo ma jàngal. nit ku baax macha allah. dama ne. papaam ku baax dama koy protéger parce que papaam moo ma jàngal. Mm-hmm. sama papaak sama yaay ñoo takki woon yaayam. ndeysaan. ca Ngaay Mexe. Mm-hmm. soxna si ndóoyi mu ngay seetaan mm-hmm. Mm-hmm. moo takki woon yaayam mm-hmm. monsieur Ly moo ma yoroon CE2 à Mérina Ndaxaar li fa nga jàngee kon sam papa fa lañ ko affecté dañ ko sanctionné woon da doon politique nguuru Abdoulaye Wade nguuru Abdou Diouf sanctionné ko yóbbu ko Mérina Ndaxaar dëkk boobu ah sa bos yow itam <laughs> yow <laughs> dëkk boobu li wax naa dëkk boobu dëkk boobu bañ fay dem amuloon courant dañoo dem wàcce bagage yi ku ñuy jeex fu ñuy taalee lamp yi fofu lañ yobone sama papa sanctionné ko fa uh-huh. bañ fa démé lañ fa fekk euh, monsieur li ñukoy wax uh-huh. Eliman li uh-huh. su ma nee monsieur li rek les Sénégalais comprendre donc moma yoron cd e di sama enseignant nit ku modeste mom ñom ñaar ñoo niro kif kif moo ma man macha allah ma koy jox wàccuwaayam muy sama xaritu papa motax motax mané le koku dama koy protéger parce que lañ ko jox sax dama ko xép lañ ko jox dama ko xeeb comme responsabilité. Mhm. parce que mënul jité commune bu toll ni mm -hmm. ñukay jox lu fay fayda loolu. Mhm. quand même mën ngi koy gérer. quand même waaw du xawma ndax mi ngi koy gérer mais lamu def ci tabaski ba. Mhm. salaire am may ko ko. Ah. fu mu ko jëlé moma ma jaaxal. booy da doon liggéey. boy def nga li ngay def nak mais boolewu ci ga graw da doon liggéey do yow nekkatoo Pastef nag nak ñu. non dama ne. affaire bi daal bambulaa bi tambalina Je ne suis pas certaine que vous allez le faire. Vous ne le faites pas à la base de nos besoins. Il y a un pays qui a un grand débat. Je ne sais pas comment vous allez faire. Vous savez, nous avons fait des ruptures. Il y a combien de jeunes qui ont cru à ce projet. là Nous avons fait 1 million, 1 million, 1 million. Ils ont fait beaucoup plus. On a remis à presque tout le monde, presque 1 hmm. million, 1 million, 1 million de francs. En plus, ils ont mis à 100 millions. Hmm. En plus, Mm-hmm. ëpp na cent millions sur l' argent du contribuable sénégalais mm-hmm. c' est l' argent du contribuable sénégalais dañ ñu ne woon loolu jeex na fi mm-hmm. dañ ñu ne woon caisse noire dootu fi am dañ ne woon loolu yëpp jeex na fi moom la ñu nekk di def nee naa la ñoom seen nguur gi mooy suñu waxee lii suba la ñuy def leneen ils ont pris l' argent du contribuable sénégalais suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm moom lañ jël di ko jox nit ñi di pas pas nit ñi de suñ ko joxoon population bi mu mën a gis mais di ko jox seen i responsable par des chèques de un million un million. ñoom ah, euh, maa gis tamit. soxna si. non maa gis na ne Adama nañoo yow ci sénégalais yi nga bokk te amoo ci. ah man soxlaa ma ko moo tax xëy na looloo tax. yow ci sénégalais yi nga bokk te amoo ci. waaw xëy na soxlaa ma ko. Abbas Paye ci sénégalais yi la bokk te amu ci. Mhm. ah kooku nag ba muy ñibbi keroog yóbbu na ay kii. non Abbas Paye da doon jaay xar. Ah, ay birigam la yóbbaale da ah, doon jaay xar ba mu jar dafa jaay doon jaay xar dafa ñàkk jariñu. Ah. Fall Paradise amul ci un million segu un million voilà ah, dama lay wax rek pour te dire que ces gens là ont cru à ce projet dañ ñu jaayoon nañu loolu dootu fi am mm-hmm. mais man bañ koy wax laa leen ne gëwuma ko mm-hmm. bambulaa bi mi ngi fii mm-hmm. ni sàq ni jóor noos baa ngi fii ni sàkk ñu jóor cakaay baa ngi fii ni sàkk ñu jóor ñi ngi jël alalu askan bi di ko pàccoo seen biir tabaski bi moo ko wane nee naa la ëpp na cent millions. li mm-hmm. ñu joxe ci chèque un million un million. du dara si ñoom. non dama ne ëpp waaye saa yi da ngaa xeeb cent millions man waxuma ko. caisse noire caisse noire bàyyi. dama ne ñoom ñoo toog ni li Macky Sall doon doxalee baaxul. réalité pouvoir. lu réalité da yéen yéen ñu ja ñoom ñoo ñu jaay dëgg ma naan yéen sax ñoom ñoo ñu jaayoon nañu ré gëmuñu réalité pouvoir ñoo toog ne ni Macky Sall doon doxee baaxul. Ah, ñoo ñu ko wax. Ah, sa turandoo daa wax lu garaaw fii. Et c'est très, très, très grave le voir. Sonko n'a jamais aimé les Foutanké. Il se sent inférieur, c'est normal, c'est un frustré. Non, non, non. Non, lol, mon vraiment, je, ne dirai je suis jamais désolé, ça. mais arrête ça. Dire, ça. Dire, pour nous dire vrai, man douma wax mukk lool. Mm-hmm. Parce que xam nga lu andi mbirum beddi oh, ay xeet te loolu warul am Sénégal. enfin ñoom gis nga bés bu ñu toogee. ñoom def allusion ak Macky Sall ki bokkul. non dama ne ça c'est politique. non dama ne. Mhm. man peux tenir discours Je gis nga mhm. gis nga discours buy non ci non je ne la pas assumer lu wax mhm. man pas ma wax sama responsabilité mayuma may wax parce que amul non dama ne même su amone duma ko wax li def réconcilier le peuple n'est très bien réconcilier le peuple askan bi nekk ni mu meloon diggante joolaa ak alpulaar ñu meloon mm-hmm. diggante séeréer ak joolaa ni mu meloon ñuy tooñante mm-hmm. loolu mooy dëgg loolu mooy taaru Sénégal du ma nekk ci loolu ci li may ne mm-hmm. mooy la ñu jaayoon askanu Sénégal ci rupture ñu taxaw ci ku ma dégg mën nga ma mere mais sama combat man Adama Fall mooy la ñu jigoon askanu Sénégal ñu taxaw ci nekk ci moo gën ñuy jël alalu askanu Sénégal di ko pàccoo seen biir di ko yemale seen biir mm-hmm. maanaam képp ku nekkul kàngam ca kaw